du am ndam mukk Hadj Babacar. jaajëf Oustaz Mor RFM matin RFM matin émission bi yee waa Sénégal. ñu dalal euh, suñu gan euh, mbokk yi di euh, El Hadj ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Babacar. di mm. nuyu auditeurs yu rajo Futurs Médias yëpp yi ñuy seetaan. jërëjëf yi ñuy déglu. yaa jiite nekk président mouvement Manko ci dëgg. Mm. bokk ci kilifay parti yi bokk ci mbootaay gi ñuy wax Jomay président. Mm-hmm. ñooy jàppale woon Jomay fay mm-hmm. ci élection présidentielle. Mm-hmm. Euh, mbaa xatu leen fa ndax euh, gis nañ ni euh, Pastef moom du yaatal. noo gisee coow li sax ku ci mel ni Samba Ndiaye. mi jiite parti bi ñu naan M10 biñ ko tabee président conseil d' administration. SN HLM coow li bëri lool lool lool lool foog naa yéen a bokk Diomaye président laata élection yi di di ñëw élection présidentielle du noonu ah. waaw noonu la waaw. waaw mm-hmm. ah, jërëjëf Babacar donc ñu ngi lay nuyu di leen gërëm ci invitation bi di ñaan yàlla liñ fi waxtaan yëpp yàlla nekk njariñ ci senegal comme ni nga ko waxee am na kenn ci ñi bokk ci coalition Diomaye président euh, ñu fal ko àllarba. ki nga xam ne moom la yàlla dogal loi may ko muy fal aux fonctions militaires et civiles muy le président Bassirou Diomaye fay muy mel ne yëf yi jur na coow loolu nag euh, coow li jugewul sax ci kujje gi waaye fi mu juge amaana mooy ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi mooy ñi àndoon ak le président Diomaye ak le président Ousmane Sonko ba def ko président def ki premier ministre président président Diomaye nommé euh, Ousmane Sonko premier ministre donc loolu li muy tekki rek day tontu ñi nga xam ne. dañuy wax ne Ousmane Sonko njabootam lu mu leen laaj ñu ñu ñu jox ko fu mu leen woo ñu wuyu ko loolu day day day wane ne démocratie am na ndam li tax démocratie am ndam mooy bu ñu demee ba euh, ñi nga xam ne ñoo fal nit ki di ko contrôler noonu loolu mooy wane ne politique bi changé na yëf yi soppeeku na ndax la confiance n'exclut pas le contrôle tontu na ñi nga xam ne euh, ñi ngi naan xale yi dañ toppee Ousmane Sonko niñ ko déggale dem bay cotiser pour dugg ci ab meeting loolu li muy tekki rek mooy. politique bi soppeeku gi mu soppeeku moo waral tey nit ànd ak président mu def nomination mu taxaw jàkkaarloog moom ne ko nomination bi nga def d'accord ma ndax yàgg naa toog ci télé wala may déglu rajo di dégg kii nga nommé di la xas waaye di xas ki nga xam ne moo jiite parti bi di Pastef les patriotes bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon complot wala ñoo doon àndandoo di ànd ci li nga xam ne mooy boom yi nga xam ne moo fi amoon bàyyi xale yu bëri ñàkk ci seen bakkan mm. bu njëkk liñ daan gis mooy boo àndeek président bu defee loo d'accord ak loo da ne waaw loolu moom moo fi daan am waaye gis nañ démb koo xam ne nome nañ ko nga xam ne dañ koo nome comme niñ nomee Samba Ndiaye mu génn wane ne moom nomination léegi léegi luñ buñ la déggee ku xas Ousmane Sonko waruñ ko nome no waxuñu ko xas Ousmane Sonko waruñu ko nomee xam nga nomee dafa am koo xam ne moom la ko suñu borom jox li may wax rek mooy gis-gis bi nga xam ne moom la patriote yi am léegi gis-gis bi waa gis-gis bi est-ce que est-ce que est-ce que c'est parce que yaa ngi wax ay waxi xas Ousmane Sonko ki xas sëñ Touba ak El Hadj Malick El Hadj Malick te sant Diagne ca nekk ca pale ba di liggéey euh, moom euh, lu tax waxu leen waxi wàcceem. non xam nga xam nga Bakar boo ma bëggee yóbbu foofu da ngay. da ngay da ngay déedéet non non non. waaw même moom yóbbu non ma ma ñëw Bakar ci Samba damay leeral rek. Ah. yóbbuwuma la foofu. Mhm. c'est une question je pense que c'est une question normale. Mhm. ah loolu rek la yóbbuwuma la. waaw léegi léegi léegi gis nga gis nga nekkul ne boo ci boo ci bañee tontu itam ñu xam ne bëggoo caa tontu. nekkul ne dinaa ci tontu amu ci benn question boo xam ne nañ ci bañ gis nga kooku bi mu génnee wax la mu waxoon ñenn ñi gis ne du yoon am na ci ñu ànd ak le président Ousmane Sonko y compris l'honorable député Cheikh Thioro Mbacké bokk na ci ñu njëkk a génne ne d'accordul ci li Cheikh Omar ñu wax kon d'accorduma ak d'accord naa ñun foofu lañ féete d' accord nañ ci li mu wax wala d' accorduñ ci d' accord nañ ci nomination wala d' accorduñ ci mais kii fal ak kii folli ginnaaw yàlla suñ borom da ko jox ki nga xam ne mooy le président de la république constitution tënku ko jox ko ko léegi nommé na mais rupture bi rek mooy bu njëkk amoo sax droit ne président warul def troisième mandat bu la nommé aux fonctions wala wala aux fonctions boo ko waxee ci suba si lañ lay folli wala ci ngoon gi yow dootoo nekkati directeur wala dootoo nekkati li nga xam ne la le président nommé woon waaye gis nañ ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi rupture bi nga xam ne moo am ci réew mi tàmbali na ci ne maanaam joxe gi nit ñi di joxe ak jàpp gi nit ñi di jàpp ak militantisme dekk gi mu dekk mooy tax tey débat bii soulevé wu moo tax tey ku ci nekk. di wax xalaat tontoo sunu laaj yaa ngi wërwëral rek parce que lii nga wax ni wax ma ko sànq. lan lan mooy laaj yow lan moo ci saabi. Hmm. waaw parce que yow boobu ba léegi yaa ngi naan nit ñaa ngi koy xarab démocratie moo demee noonu dafa am ay avancé mais yow joxe wo sa sa gis-gis ci mbir mi. waaw yow lan moo ci sa position. xam nga xam nga man li ma gëm li ma gëm mooy ku ci nekk war nañ koo nome wala waruñ koo nome non xam nga ki war a nome ak ki ñu warta nome du man maa koy wax du man maay wax war nañ nome wala ñu waruñu nome mais tey ki nga xam ne mooy Samba Ndiaye moom mi nga xam ne moom lañ ñomee PCH nga bokk ak moom bokk mbootaay xam nga mbootaay gi nag toog réunion yéen ñaar xam nga mbootaay gi nag déedéet man mosuma fekkee sax fu Samba bokkee ci ci Samba non non non du xam nga booy siis da ngay siis ci loo moom waaye loo xam ne moomoo ko Sénégal lu yaatu la samba parce que ni ngay ni ngay ni ngay layam layamee ci ci nomination bi liñ ko jox buñ la ko joxoon nga jël itam de am déet. samba samba ci boppam moom moo war a xam ne le président Diomaye Faye a été élu par le peuple et pour le peuple président boobu nommé ko bi mu ko nommé mu gis ne ñi ñenn ci peuple bi wala ñi doon jàppale le président Diomaye Faye ba mu ñëw jël réew mi ñooñu d'accord moom moo war a tey am ngor ne président doo ma gën a gore. léegi su dinaa la ñu bala ñoom Baye George ñu taxaw tuuti. bu ñu nee Samba Ndiaye léegi Aminata Touré ak Lansana Gagny Sakho ak euh, Mary ñaan Niane ñi àndoon ak euh, Macky itam loolu moom noo ko gisee te yor place yu baax fi ñu toll nii. xam nga xam nga ñii di wax nii. daan ko xarab waaw ñii gis nga ñii di wax nii. jug ne d'accorduñ pour Samba ba ci man d'accordu ma pour ñu nommer Samba. ak ñu bëri ci yaa ngi doog ko wax kay. waa non xam nga xam nga dafa am loo xam ne. dafa euh, Aminata Touré ñi ngay tudd ñooñu ñëpp bokkuñu ak kii parce que ñi nga xam ne ñooy wax bi ñu nommé Lansana ñi ngi fi bi ñu nommé Aminata Touré ñi ngi fi bi ñu nommé Mary Teuw Niane directeur de cabinet ñi ngi fi te gëw ma ne ñett ñooñu ñu nommé wër nañ ci patriote yi di joxe xaalis wala ñuy maye wala ñuy neexal kenn mais boo gisee ñu nopp ci. mooy fii fii Aminata Touré fii Aminata Touré tolloon ci kàddoog Ousmane Sonko. boo koy wax ni APR ak Benno yoruñu agenda Sweet Beauté. Aminata Touré euh, loo loolu noo ko gisee. Aminata Touré ak Ousmane Sonko ñaari tête de liste la woon pouvoir ak opposition di sànnante ay tract. foofu la yëfi toll seen Cissé tuuti. waaw ndax sa argumentaire bi dafa woyof. waaw ci yow ci yow. mën na mën na woyof ci yow. non non mais franchement mën na woyof ci yow mais tëkkale tëkkale Aminata Touré ak keneen Aminata Touré dafa taxaw jàkkaarloog Macky Sall ci troisième candidature am jug taxaw jàkkaarloog Macky Sall ba Macky def ko lam ko def mu génn ñëw ci ñun bi mu ñëwee ci ñun opposé wu waxuma opposé wu kese de dafa muyee la mayo bokk ci kàngam yi nga xam ne ñoo ŋànk la coalition Diomaye président non non nga gis loolu bokk ci kàngam yi nga xam ne ñoo ŋànk li nga xam ne mooy la coalition Diomaye président dox ci ni mu ci war a doxee ci alalam ci dooleem ak ci ñaqam léegi bàyyi naa Aminata Touré ak Mary ak lancé léegi lancé na nag moom waaw xam nga tey dama ne la lancé na bi ñu koy fal ñii di wax ne ñi ngi fi ñun ñi ñëpp ñu ngi fi wax waxuma ñi wax waaye tey yow yow li nga wax laa wax koo xam ne li nga wax lañ bëgg a xam loo wax koo xam ne nee nañ rapport daf ko épinglé yaa may dégg yëfam yëpp nekk ci internet bi ñun ñëpp ñu yëg ne am na cinq ak quelques millions ñu ko doon toppee xamuñu dëgg la xamuñu du dëgg kooku wax dëgg fi bu buñ ko nomee mën naa gàkkal li nga xam ne mooy la jubal jubanti bi nga xam ne moom le président de la république maa ngi maa ngi ñëw Bakar maa ngi hmm. ñëw Bakar foofu li ma bëgg a wax xam képp ku nekk ci biir coalition Diomaye président nit président dina nommé indirectement dina nommé directement muy ñi fi jiitu muy moom mi tey li koy sauver rek mooy ñi nga xam ne dafa xool ne gis nañ am gis ci ñoom ay valeur cardinale ba nommé leen teg leen ci wetam ñu koy proposé ñoom it bu ñuy proposé nañ proposé ay nit yoo xam ne amaana amul dara dara dara loo xam ne dañ leen koy toppe ci rapport wala George mën nga ma mayaata waaw wala ci yu demee noonu George léegi dama ko bëgg a laaj euh, léegi li ngay wax nii yëpp euh, Samba Ndiaye wax na lii euh, Sonko kon kenn waru ko fal léegi Sonko ak Macky Sall ana luñ fi deful ba ay bakkan rot fi luñ mujjee non bu lox Sonko dafa dafa dafa dama ni Sonko seen seen seen seen xeex seen xeex non waxuma lu tax du ma xeexu Macky Sall Macky Sall ak Sonko moo fi indi ay bakkan yu a dindi looloo am léegi bàyyi ma la Macky peuple sénégalais la euh, doon xeexal te mhm. euh, bëgg a xam mhm. Sonko ak Macky mhm. liñ fi defante ak liñ fi waxante yëpp bu ñëwee Euh, Sonko ak Diomaye nekk ci kaso bi waxtaan ak Macky ba génn ci kaso bi. Mhm. ba falo dem fekk Macky ci palais bi lëngoonteeg moom. Mhm. loolu gën a foor ay mbiru Samba Ndiaye ak Lansana ak Mimi. benn man yëgu ne Sonko ak Macky bi ñu nekk ci kaso bi. d' accord waaw man loolu yëgu ma ko benn. d' accord gisuma gisuma image. xamoon nañ loolu nga ñuy tontu boppam wax na ko ñoom. bi ñu génnee kaso waaw dama ne dama ne li mu wax de c' wax ji mi ngi fi vidéo yaa ngi fi yàggul waxtaan am na waaw dama ne dama ne waaw damay déglu dane Macky Sall ci boppam xam nga tey Babacar bu ma la yónnee woon ay nit doone duñ dugg sa kër foo man di nekk bu ma la yónnee nit bu la neexee ñu recevoir la rawatina nag koo xam ne dafa nekk fa nga xam ne fa la fa la fa fa kaso ba nga xam ne dañ koo tëj fa mu nekk amul benn droit wala benn nangam Macky Sall yónnee na ay nit ci Ousmane Sonko loolu nekkul ne Ousmane Sonko ak Macky Sall dañoo daje te Macky Sall ci boppam waaw maa ngi ñëw waaw maa ngi ñëw maa ngi maa ngi ñëw sëñ bi loo ci xam maa ngi ñëw waaw léegi ñàkk xam dara ba ma ci ñàkk xam nag moo tax dama ne du ma ci sori ba ñu faloo ba noppi mook Diomaye ñu sol seen ñetti abdou yooyu dem pare accolade fóonante ak Macky loolu fóonante la mooy fóonante Babacar xoola dama ne mooy dama ne li ngay wax nii bokkul ndax président lu ko wutaleeg lu ko wutaleeg Samba Ndiaye ak Mimi ak Lansana déedéet xam nga lu dama ne la gis nga Ousmane Sonko ñi ko topp ñi topp le président Diomaye jox ko tey 54 pour cent de l' électorat ñooñu joxuñu leen t-shirt joxuñu leen sandwich yoreluñu leen dépense fayuñu leen mayuñu leen xaalis ñooñu ay patriotes la ñu bëgg Sénégal gis ne Sénégal li koy doxal mooy jub jubal jubbanti képp koo xam ne nommé nañ la suba parce que y a beaucoup de Samba Ndiaye képp koo xam ne nommé nañ la suba ne nommé nañ la suba ñu gis ne carrément bokkoo ci ñi nga xam ne ñoo war a doxal projet bi nga xam ne moo tàmbali 2014 ba ñoom dinañ génnaat wax léegi nag dina fi dem wala du dem loolu suñ borom moom moo ko xam. George euh, George moom moo ko moom moo ko nommé. pourquoi nangu démb bañ tey. pour pourquoi. nangu demb bañ tey. kan ngay wax ak lan ngay wax. ah mais ñi nga xam ne ñoom ngeen di xarab. waaw xam nga xam nga biñ ñëwee pour dooleel Diomaye. Mhm. ci coalition Diomaye président. Mhm. ñu nangul leen ko. tey ñu naan waruñoo waruñoo bokk. ma ma ma leer ma leeral benn affaire ñu bëri ñu ngi wax transhumance gis naa sax benn benn. non woo ma la transhumance ñëw maa ngi ñëw transhumance nag gisuma ko man ci suñu suñu suñu suñu nguur gi gisuma ko ci. li wane ne gisuma ko ci mooy gisu leen kenn koo xam ne tey xam nga tey bu fekkee ne nit dafa jug nekk président conseil départemental wala mu nekk maire taxaw ne man samay militant ak samay nit nañ votel passif lu ñu koy wax bul votel passif kenn du ko ko wax transhumance ku nekkoon ci nguur nguur ga jeex. la ma lay laaj tontoo ko de yow transhumance ngay wax man ne la pourquoi nangu démb bañ tey. la mooy nangu démb ak lan la sama jaay ah. c' est avant que Diomaye nag seen au pouvoir déglu rek déglu rek avant avant que Diomaye nag seen au pouvoir ci la ñëw fekk si coalition bi mm-hmm. ñu nangu ànd ak moom mm-hmm. xam nga wax ji dafa leer président Ousmane Sonko li wax dafa leer dana képp koo xam ne donte Macky Sall nga àndaloon wala Abdou Diouf nga àndaloon wala Abdoulaye Wade sa loxo set amul dara luñ la épinglé amul dara luñ la mën a tuddal. déedéet Sonko dafa ni woon falu nañ nag ku ne na nga toog fa nga toogoon. wala wax mais xam nga xam nga kii li mu wax bokkut ak li may wax li ma li ma bëggoon wax yow loolu nga tontu nii mais kii dane koo xam ne dafa àndoon na ñun avant élection présidentielle léegi nag fal gi ak folli geeg nangam ak nangam président lañ ko jox waaye nag patriote yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci mi fal le président Diomaye Faye te président Diomaye joxu leen dara seen doole lañ doon campagne ñooñu duñ nangu koo xam ne rapport daf ko épinglé da a mos dara rek rapport daf ko épinglé waaw bu la neexee nga gisee noonu rapport ah, daf ko ah, épinglé bëggoo dara rapport daf ko amul ko bëggul dara ah, amul ko bëggul dara mais tey képp kuñ ciy jox rek na nekk koo xam ne ko loxoom seet la ndax amul tax ñii dañuy contrôler te lii mooy wane ne Sénégal soppeeku na rupture am na dama ne bu njëkk bu ñu la nomee bu la président nommé bu jëlee décision bu la neexee ak bu la naqaree amoo droit yëkkati ci sa kàddu ndax boo ci yëkkati sa kàddu dootoo falu Aminata Touré rek mën nañ fi tudd soo Kaba ak ay nit yu bëri yoo xam ne démb benn baat lañ wax Macky Sall foole leen muy nous sommes nous sommes contre une troisième candidature kon bu ñu demee ba nekk ci géew boo xam ne d'accord wóolu nañ président xam nañ ne yor na réew mi attan na ko te dina ko doxal avec li nga xam ne mooy référentiel 2050 bi bi mu proposé waaye teewul nag bu ñu gisee loo xam ne méngoowul ak la nga xam ne moom lañ digoon sénégalais yi ñoom ñu génn wax ko te yaakaar naa ku rapport épinglé nommé ko méngoowul ak li nga xam ne moom lañ digoon sénégalais yi yaakaar naa loolu bëggoon naa ñu wax ci ci ci lu ëpp rapport pour rapport mm. kenn mënul wax ni am naam amut mm. parce que c'est juste un rapport mm. yoon moo mën a euh, naan diw moo def kii moo defut au même moment aussi avant moom euh, mbirum ONAS mm-hmm. ñu ngi ciy tudd Lansana Gagny Sakho def na am defut kenn xamut mm-hmm. waaw non xam nga xam nga li ngay li ngay comp yi ngay yi ngeen di comparé ah yaa fi wax waxee non non yi ngeen yi ngeen di comparé bokkul sëñ Cissé dama la koy baamtul wekk ñu waay waaw ah, léegi la loo bëgg ma wax ah, loo bëgg ma wax loo bëgg ma wax nga bu doon far lu président ne waaw loolu mooy far yaakaar naa ñu doon wax naan ñii fu ñu leen yóbbu ñu dem lu ñu leen wax ñu def lu gis ñu lu gis ñu ne waaw démb weddi nañ loolu démb wane nañ ne ñun nekkuñu ci benn groupe boo xam ne dañuy toog di noppi ba lépp loo gis lépp lu ñu gis rek dañ ne waaw. léegi daal réew mi réew mi Pastef moo ko moom. c'est-à-dire que non non attends attendez attendez léegi Pastef moo moom réew mi ba euh, euh, poste yi ak doxalu réew mi euh, daal yéen a ko bëgg a féetewoo yéen waa Pastef ak Diomaye président yeneen sénégalais yi ils son sur la touche quoi en marge c'est ça loolu mooy philosophie bi. benn benn benn ma tontu la ci tontu bu gaaw. ministre de l' intérieur bokkul passé politique wul. non a wax ne. ministre de l' intérieur Macky Sall noonu ah, euh, ma ne bokkul waxuma la de dama lay jox ay faits mais nangul ma ne bokkul Pastef je ne ministre de l' moo jiite woon gendarmerie ci coowal aji saar gi gendarmerie enquête ci yëf yi Macky Sall dàq ko yóbbu ko ambassade de Sénégal ba ca euh, Moscou Pastef falu woowaat ko mook yeneen moromam yi ministre yoo xam ne sax ñu ngi woon ci état bi yor ay postes yu am solo wàcce leen Pastef falu jox leen jox leen poste mais dema léegi réew mi dañ ko waa ku bokkul Pastef du ci bokk ma lay leeral dama la bëgg a wax ne ministre de la justice aussi bokkul Pastef ministre des forces armées bokkul kon ñaata nit nga gis ci guvernement bi ci direction yi ñoo xam ne bokkuñu Pastef amaana sax ñenn ñi amuñu benn parti politique amuñu benn mouvement politique ay sénégalais lañ yu am compétence am xam-xam ñu gis ne war nañoo dox réew mi ñu xëcc leen ñu doxal réew mi te déggoo ci benn coow kon kii bu amee mu am coow loolu mooy wane ne moom ci boppam moo war a libere sénégalais yi libérer le président Diomaye wóoru ko gën a gore daal di démissionner bàyyi ko mu continuer liggéey bi nga xam ne moom la tàmbali woon ay waay Samba waaw xanaa Diomaye ak Sonko dañoo war a démissionner ñoom ñi la moo tax ñoom ñi euh, lëkkaloog moom mais kan moo lëkkaloo ak Macky Sall. ah mais bi laata élection présidentielle di am. non mosuñu lëkkaloo ak Macky Sall. buñ Macky Sall candidat moo nekkoon le candidat de benn bokk yaakaar c'est que da nga cee xamul dara fekke woo ko waaw non léegi nag lu ma fekkewul xaw ma ci dara wax dëgg fa yàlla wax ci nag moo tax nag nga war a yemale say gis-gis ak say analyse sama sama analyse yoroo yoroo yoroo toutes les données waaw léegi nag sama analyse fan la yem ci données yi ma yem yaa may dégg ci gis-gis bi ma am ak ci li nga xam ne li ma gëm ne moom mooy dëgg li ma gëm ne moom mooy dëgg le président Ousmane Sonko du négocier yenn yëfi ci ginnaaw ala ndodd sénégalais wala ndodd patriote yi gagné nañ à 54 pour cent li ñu ko may mooy sénégalais yi ñoo gis na Macky Sall yàq na réew mi boom na nit ñi dëkk bi sous-développé na économie bi suux na ñu indi le président Diomaye Faye def ko président ci noo xam ne kenn mosu ko ko def muy opposant bu gagné au premier tour. yan yan ñooy ki gagné ki nga xam ne moo fal le président Diomaye maa ngi ñëw maa ngi ñëw yan ñooy sa maa ngi ñëw Macky Sall yan ñooy indicateurs yi nga Macky Sall bu ma noon fal Macky Sall bu ma noon fal moom mooy faluwaat Macky Sall bu ma noon fal nitam lay fal waaye du xool koo xam ne moom la xeexal pendant dix ans muy fal nitam kon ki fal le président Diomaye mooy peuple sénégalais bi ñenn ñi ne d' accord duñ ci la nomination de Samba Ndiaye mooy peuple sénégalais bi ne ñenn ñi ne d' accord nañ ci référentiel 2050 tey législative yi di ñëw sëñ bi bul soxoree Samba waay yow tamit parce que yow yow mosogoo rek mosogoo rek nga ni Samba du mos non du ñun politique pour mos wala pour pour pour barkeeloo ak yooyu nekkuñu ci yaa ni yaa bëgg nga daal ne moom le président Diomaye indi ànd ceeg le premier ministre Ousmane li fi amaan mooy président bu ñëw da ngay gis fii senn nga fatt ko déwén mu sennaat ñoom liñ indi mooy dinañ defar réew mi ci noo xam ne lañ naan gouverner c'est prévoir suba ak ginnaaw suba képp koo xam ne yaa ngi fi di fi yeewoo di nga yëg ne réew mi teg nañ ko ci fondation bu dëgër xam nga nag lan teg nañ ko ci élévation bu dëgër lan mooy dëgg def nañ coulage bu dëgër loolu mooy référentiel 2050 d'accord jiital ci doomu aadama formé ko oh, jox ko xam-xam laaj nag sëñ sëñ <laughs> sax nag yéen <laughs> yéen ñi parce que gis nañ ay directeur général directeur généraux de société ak ay figure de premier plan mhm. Pastef mhm. Waly Diouf Bodian mhm. Abass Fall Guy Marius bind ci internet bi ne nañ dàq Samba Ndiaye que Diomaye ngeen respecté wul parce que nomination yi bu ko Sonko defoon ñoom DG yooyu du ñu yëkkati seen kàddu booy yi du ñu yëkkati seen kàddu c'est-à-dire que yéen Diomaye ngeen respecté kon dafa am nomination yu Diomaye def ak yu Sonko di def Diomaye mooy def lépp dama ni nekkoon président nommé Samba Ndiaye hmm. coow du jib waa léegi respecté wu leen jomaay yéen léegi léegi léegi xam nga loolu loolu moom jomaay signé en tant que président de la république ngeen nekk di ci sa gis la président jomaay fay xam na fan la ko patriote yi teg xam na wek non respecté leen ko maa ngi ñëw xam ne wek bi nga xam ne moom la ko patriote yi wek xam na coalition jomaay président fi nga xam ne fa lañ ko teg muy borom xam-xam di ku am dal di ku nite di ku xam fi mu jëm waaw non maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw la confiance bu Sonko defoon nomination nga sa ngay waxee. la confiance n'exclut pas le contrôle président son Ousmane Sonko ci boppam amul nomination bu président Diomaye def si tam li ma jàpp. ci li mu wax ma dégg ko te moom du ko ci consulter du ko ci wax xalaatam kon ñoom ñaar amul kii moo jaar nii kële moo jaar nii benn groupe la da leen boole bëgg wala nga boole leen bañ waaye kii moo baax kële moo bon kii moo nangam kële moo nangam loolu il faut respecter le président de la République c'est un mélange homogène ndox ak suukar la ba ngay boole naan wala loolu mooy ki nga xam ne mooy le président Diomaye ak le président Ousmane Sonko yaa ngi wax waxee rapport tout à l'heure mm. ñu mm. euh, noo gisee ni premier ministre ci boppam mm. yoon waxut ñi nga xamante ne ñoo war def gëstu yi. Mhm. waxuñu. Mhm. muy seetal ñi ñuy tudd ci ay mbir. Mhm. Jean Michel Sène. Cheikh Tidiane Dieye ci wàllum ONAS entre autres. mu setal mu setal leen. waaw non xam nga dama ne li mu wax dafa leer. est-ce que c'est son rôle maa ngi ñëw maa ngi ñëw xam nga tey ki taxawoon di wax kooku ce n'est pas premier ministre. ki taxawoon arrêt waaw non maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw on vous permet pas non mais maa ngi ñëw maa bu ma la fekkoon sa kër du ma la tuddee journaliste bu ma la fekkoon sa kër keneen laa lay tuddee ki taxawoon ci biir njabootam taxaw Dakar Arena di wax kooku ce n'est premier ministre di wax ci poste administratif ngi ñëw mais da ngeen di du premier ministre muy wax ay onance ak mais da ma lay tontu seytaane waxul dëgg seytaane waxul dëgg mais yàq na xel bu demee ba ay yàqkat ñoo xam ne mënatuñoo jot mallette lañ amoon mënatuñ ko am seen intérêt yàqu na ñu xam ne menacé añ leen ñu bëgg a duggaat di jaar ci ay rapport rek di créer ay wax yoo xam ne fenn teguwu fa moom bu demee en tant que njiitu Pastef di jëm ci législative xam ne loolu mën na gàkkal ndax seytaane waxul dëgg ma yàq na yoon la <laughs> yoon la moom njiitu Pastef le président des patriotes sëñ Cissé ñu ngi lay gërëm ki am lu kenn musul am ci politique daal di taxaw weddi nga xam ne moom la weddi sénégalais duñ joxe bopp rot làmmiñ dinañ ko jox majorité à l'Assemblée nationale coow li waa opposition la waaye du ñu waa opposition président mouvement manko ci dëgg bokk ci Diomaye président jërëjëf Georges jërëjëf Dieynaba Vous avez besoin